yàlla defal ko jàmm defal ko njaboot gi defal ko mboolem jullit fépp fu ay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di safa wasaare làmb rek ñu ngi lay ñaanal yàlla na la suñu borom defal jàmm defal ko mboolem jullit Père ma lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di la siyaar di la màggal. waaw jërëjëf may auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi safoo si émission bi tudd wasaare site bi tudd wasaare di leen ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu yàlla na fekk leen ci jàmm eh, di leen yàlla jàmm ak xéewal ak poche yi dara eh, di ñaan di kontaan trop nag tey ji wax dëgg yàlla ah waa site bi déranger ñëw fii ci kër gi nag tey ñu ne nag fii la ñuy te émission bi ah vraiment ma bég ci lool nag wax dëgg yàlla waaw. naa fi ceeb bu neex macha allah ah waaw waaw yow. moom bu dijj nga daan lekk sax waaye man moom bii yoon macha allah boo demee kër euh, Père Fallou ceeb bu dijj nga fay lekk waaye fii moom ceeb bu sew bu neex laa fi lekk macha allah. non Fallou Diop xam nga am njóobeen la moom moo may féetale ceeb bu dijj waaye ceeb bu dijj moom moo koy jëndi. indi jox awa awa toggal ko ba pare mu naan Birahim la moo bëgg ceeb bu dijj bi tey léeg mu woo ma ne tey ceeb bu dijj bi la ñuy tàññee moom moo fay dem man gëj naa fa. gëj naa fa trop. sax bu ma ñëwal ba toggal ceebu Birahim. ah ceeb Birahim ma ne moom a ko gën a bëgg fop moom kay moom kay moom mooy jëfandikoo ceeb bi ab njóobeen la rek boo xam ne bii. tubaar kàlla moom bu ma ko doon sumi nu dese dara waaye dama koy jéggale parce que sama rakk ju baax la yoo xam ne ji tubaar kàlla rakki tànneef la waaye daal bu doon loolu wax dëgg yàlla dinaa ko euh, du desee daal dinaa ko summi. parce que ànd nañu sax ànd nañu sax benn njaareem. def fa benn euh, sortie bu ñu defoon waaye caabi oto dafa ñu ne ndëkkee la fàtte caabi oto xam nga eh, loolu garaaw na. caabi oto la fàtte ci ndëkkaay bi. ñu dox lu yàgg mu door a fàttali ko ne oto la yoroon. fekk man gis naa caabi ji maag kii Ndiaye benn booy bu ne woon euh, sénateur bu tudd xaw ma nan Ndiaye waaye ndeysaan boy bu baax. <laughs> ñu ñu kopp sant rek gis ne caabi jaa gi ba fàtte ne ko bu fekk caabi ju booy Ndiaye bi jël na ko xam nga kooku mën la wax ket dara. kon de Père Fall war naa xoolaat. bi tamit wax dëgg yàlla yàlla bay na ma goro bu baax boo xam ne bii muy jabaru Sémou ñu di ko wax Nasira. Nasira ah, waaw tubaar ka noonu moom rek la mën. Hmm. waaw togg moom ak présentation ñam. Hmm. tubaar kàlla jàmbaar ci. yaru tamit wax dëgg yàlla yaru tamit gën loolu la waneegun mm-hmm. seet bu bees la nag mm-hmm. loolu la fi wane moo tax yaayam bi fi ñëwee keroog ne ma dafa ñëw seet si ko mm-hmm. ma ne ko ah, mu ne mënu mu toogee ma ne ko boo amee keneen dolli ma xam nga loolu wax la ma ne ko foofu laa yem dama ko daal magam a ngi toog yaayam a ngi toog ma ne ko boo amee keneen dolli ma ne ko loolu nag wax la nag góorgóorlu rek ba bañ a soppiku waaye ni mu ma leegoon daal ah wax dëgg yàlla ah, jigéen ju aw na yoon de. man de maa moom fi mu toll nii euh, moo dàq ceeb ci réew mi. xam naa dinaa wax si mu ne ko fu mu seetaan site bi comme léegi li nga wax ci jabar ji am naa ne. <laughs> macha allah waaw Nasira moom moo dàq ceeb ci réew bi ah lekk laa ceeb Gambie. lekk naa ko euh, Mbour. lekk naa ko Thiès. lekk naa ko bari na ci réew bi fu ma ko lekk waaye ceeb bi ba lekk fii tey. Hmm. ah macha allah sant naa de. ah bi de sax daa gën a ubbi sama xel bi nag. ah kon nag alhamdulilah ceeb bi daal mu ngi fi moom. ak plat boo bëgg nag. saa yu ngeen ne tey fii la ñu añ see père rek woo leen moom woo ko mu ne ko tey lu ngeen bëgg a añee ñoo toggal leen parce que kër gi ngi seen kër ba pare samay doom ngeen. te ñoo bokk ci lu ñuy yëngu te wax dëgg yàlla ànd bi rafet na. Hmm. kon tey foog kër gi seen kër. jërëjëf waaw euh, jërëjëf mbokk yi kon noonu la ñuy fas yéene rek euh, dugg ci waxtaan bi tuuti ñu waxtaan père sa photo bi kañ la woon. waaw photo bi màkk laa ko photo 2003 euh, année boobu ci laay dem retraite waaw Sonatel. dem cinquante cinq ans yi quoi panne boobu nag ci à 2003 daal laa dem màkk laa ko photo foofu quoi. Mm-hmm. Hmm. kon 2003 bi ngay dem Màkka fekk na nga bàyyi bëre bu yàgg. waaw fekk na man 98 laa bàyyi bëre laa def sama jubilé mais 95 laa bàyyi bëre waaw 95 daal laa bëri fii maanaam booy làmb maa ngi koy nuyu de passage parce que tamit làmb kenn du ko ñëdd <coughs> boo ci nekkee di ci yëngu di ci amee ndam soo dee ba la nga yëgoon yëgatoo ko la nga mënoon mënatoo ko la nga daan def yaa ngi commencé di hésiter danga nga yàkkamte am bi day yeex ci yow léegi nga dem ba komba su ñëwee nga commencé tiit ci bis bi ngay tiim yàkkamti tiit ci bis bi loolu boo seetaataat sa bopp xam ne la newoon ci yow yàlla nga koy rocci waaw loolu na foofu nga koy santire bëree noonu laa ma xalaat combat bi ma fu jëkkër bi may génn fii ngem bu booba alay saar sama doom ji ndaw ji xale la ñëpp la xas samay tànk waa étage yi ma jàkkalu kër yëpp tiim ma mel ni benn nii way génn ci kër gi oh, ma triste trop fi ma taxaw laa ne ah yàlla dellu see jàmm daal dootuma bëri doxaat nañ fi ay combat yu bari nag sax. Mm-hmm. waaw yoo xam ne ay boy yu mbër yoo xam ne def nañ carrière ba ñu ngi jeexal si. Mm-hmm. ay champion ay Tyson mi dox nañ fi suñu combat. Mm-hmm. waaw dox nañ fi suñu combat fay ko lu bari jox ma tuuti ma lànk. waaw may sama doom la bu ma demee ba di bëreeg moom kay ci ñett fin làmb dama doon bokk ci groupe dama doon bokk ci lim bi rek. waaw parce que am bëri bu ko daan mais boobaa ma doole ji ko daan. waaw booba sama bari daan na ko parce que bëri bi ma bëree moom kenn ëpp ma ci woon bari mais doole ji nekkatu fi. waaw ah, doxal nañ ma ko doxal nañ fi yeneen combat sax yoo xam ne yi dama ne du ma bëreeti ñu waxoon ma lànk ma ne dootuma bëri. Mm-hmm. jàpp sama liggéey ci laa nekk muy Sonatel may nuyu waa Sonatel yëpp. Mm-hmm. jox fa ne ba retraité ba tubaarkàlla. Mm-hmm. alhamdulilah noonu daal laa def. Mm. Euh, père d'habitude dañ doon gis euh, ñu mel ni yéen dañuy bëre ba bàyyi bëre doog a dem màkk euh, léegi ñu gis lu leneen lu bees. Euh, xale bi di Balla Gaye numéro 2 actuellement ni may waxee nii ànd naag Aziz Ndiaye dem umra ji màkkatal mu karam euh, loolu lan la mën a boole ak sport bi. waaw màkk day place boo xam ne bii dem fa yóbbu kàttan moo baax. kàttan sa digg doole. nga dem fa baax parce que bul ne damay bàyyi ba sama bëri te du bëri doo doole bàyyi ndax di dund ba booba. yàlla yor sa bakkan di est ce que mën ngaa danga ne yàlla damay damay bàyyi bëri door a dem door a dem màkka du ma dem màkka ñëw di bëri déedéet màkka farata la mm-hmm. hajjul bayti liman istata'a la wax mm-hmm. iqaamu salaat itaawu zakat sawmu ramadan hajjul bayti liman istata'a la ñu wax mm-hmm. ajjib dafa bokk juróomi ponk yi nga xam ne ñoo ŋànk lislaam gis nga bi nga majoré rek yàlla may la nga major rek la la war waaye nag dañ caa laxas daal di ne hajjul bayti liman istata'a ajal aj màkka war na ci ki ko mën boo ko mënul wàcc na la waaye boo ko mënee nag fànk la boo xam ne bii danga day complété diine moo tax ku ci mën a am biir màkka rek war ngaa mën dem màkka bul xaar ne damay xaar ba màgget wala damay xaar ba bàyyi bëre wala damay déedéet ni la julli waree nga xam ne comme tàkkusaat jot nañ noot nañ nga bàyyi li nga doon def dem julli ji wala tisbaar noot nañ ko wala tàkkusaat waxtu wi jot na nga bàyyi lépp jàpp julli mm. noonu la la aji ware noonu la la umra ware mm. mais nag aj nag moo gën a foor umra baax na waaye aj bi nu moo gën a fort parce que aj ma bokk na ci fon ponki juróom yi ah, ah, ponki ji taxawal islam aj da cee bokk mais umra bokk ci waaw loolu mu def lu baax la lu complété diineem la loolu it ko yàqal bëre mënu ko yàqal dara waaw loolu lépp dina tax sax xëy na bu fa jógee gën a ragalaat yàlla gën a góorgóorlaat ci diineem gën a xam ne ndaw gii mu toll ak lii mu toll di ko def nii doolee koy def mais day jeex. Mm-hmm. papaam a ko sutoon ëpp ko doole foofu. ana anamu tey jeexal na. ñu ñi ay baayam toll woon nañ fa jeexal nañ mu toll ci digg ndaw dem umra bu ñëwee nag na préparé dem aji nag. muy fenn farata bu ko wàcc. benn farata boo xam ne gàll woon na ko yàlla def wàcc na ko mu continué tee nag bu continuer sport am loolu ci dara. waaw loolu parce que newuñu ku jëm màkk dootoo bëri ñii ñun nag Sénégal dañoo tàmm aada. waaw dañ naan ah man daal dem àllaaji bëri ji ba pare ñëw ñaan àllaaji diwa ngay bëri àllaaji daal déedéet. alaaji diwa ngay bëri loolu du ci dara mu ngi mel ne ñu ne alaaji de xëy na liggéey ñu ne alaaji de xëy na dem na dem na euh, defi benn maanaam nekk ci leen ko mm-hmm. kon kay ku jógee Màkka da ngay retraite dootoo liggéey mm-hmm. de loolu du ci dara. sport bi est-ce du sport bi la ñuy xalaat euh, ku jóge Màkka doon alaaji ñëw ngemb nekk ci digg làmb ji di bëre ak fet ci geeg yu mel noonu est-ce du loolu la ñuy xalaat. mais loolu bu ñu ko xalaatee. Mm-hmm. loolu boo demee Màkka war la boo dewul Màkka waru la. li ñuy def nii. Mm-hmm. aj ma ajul bayt bi ak ñëw ngemb bi nii di ba mm-hmm. soo dee màkk waru la soo demul màkk waru la soo ajee waru la soo waru la parce que mm-hmm. dafa bokkul ci diine. parce que dañ na euh, ma maanaam góor awra bi nga commencé moom béy na surat ba béy na surati war a kubatee surat mooy jumbox war a kubatee ay mooy oom maanaam sa awra foofu lay am leneen li ci feeñ lépp loolu boo ko bee rek mooy awle waaye li ci des lépp awra la te ñun suñu lépp day feeñ suñu pooj yi suñu yëpp day te loolu waroo ngem mu génn di feeñ loolu dafa araam dagan maanaam deret ji ngay dóor mu génn dafa araam dégg nga waxtu julli ya nga fay faat dafa araam maanaam ju bëri li ci daganul dafa bari li ci daganul dafa bëri de kon nag bul ne rek mbër nga rek tax tax nga fàttali li ci lislaam bañ lépp nga nga nga bañ ko lépp lu ci lislaam tere rek da nga tere woon na ko avant ngay dem màkka waaw ba nga xasee masoor rek islaam tere na la ko waaw euh, kon mbër yi ñeneen ñi nga xamante ni tey dañuy am vacances ñi dem Italie ñi dem France ñi dem États-Unis euh, tukki yooyu ñuy tukki kon war nañ cee mën a boole xalaat ni ay jullit lañ war nañ mën nañ ko war nañoo mën a dem Màkka umra ji. mën nañ ko mu umra ay bon point la maanaam naafila la umra naafila la boo xam ne day yokk say bon point hmm. maanaam dem ziyaare ji genre aj la mais nag aj da koo gën a fort hmm. loolu rek waaye boo ku ko mën koy def ko baax na hmm. mooy comme màkk tamit ku ko mën tamit mën ko def ko baax na parce que yor sa alal tamit yor say million te demoo màkk loolu tamit jaaduwul kon tey ponk lislaam yi def nga yaa ngi julli yaa ngi génne asaka yaa ngi fokk sa waxtu yaa ngi génne asaka yooyu yëpp yaa ngi koy def yaa ngi taxawal julli lépp yooyu yaa ngi koy def waaye nag benn ponk ba ca des nag ba nga xam ne ci taxawal islam da nga ko cee booleegul te yàlla may loo na la ko ko man mooy li mooy ajul bayti bi ko yàlla may loo koy alal nga war a ko war a def waaye koo deful nag amoo ci bàkkar léegi kon buñ ne El Hadj Alaaji Cheikh Mbacke Kebe na Alaaji Birame Ndiaye Alaaji El Hadj Bekaay Mbaye Balla Gaye kon bu ñëwee mën nañ ko wax El Hadj Balla Gaye de ne ajuwul dafa umra ji déedéet aj ngay dem ñu umra aj ngay dem aji def sa panko boobu ñëw ñu ne ag elage euh, wala elage waa xam wala elage ah, Bachirou wala elage Ndiouga Dia ñoo yëpp elage dem ki aji waaye ki umra ji maanaam mu ngi mel ni tey jii nga jóg rek dem ziyaara ji Rasulullah del siwaat waaye bon point la nag maanaam ay taraanga yu baax la ay kii boo ay yiw yu baax ci nekk waaye nag kenn du la tujji nag aji déedéet al aji wo aji beneen ponk la <laughs> beneen ponk la ci lislaam bokk la baa xamal lu ma xamul loolu déedéet jóge foofu ñu naan hélas déedéet hélas kenn loolu loolu aji aji bi lañ ngay jóge ñoon da nga aji woon màkk waaw def farata yi lépp daw safa ak marwa dégg nga dem yëpp maanaam li màkk te yëpp jour yi ngay def Medina Medine jóge fa dem màkk dem wër def ko daw safa ak marwa yooyu yëpp ay farata lu ñu fay def quoi waaw dem na voilà Musdalifa for xeer yi sànni ji jamra dem yooyu yëpp yàlla bu mu leen ump nag ak yéen ñi may seetaan yëpp yàlla bu mu leen ku ci demagul yàlla la yàlla yóbbu. sama papa rek la bëgg. loo ko wax dem rek la bëgg. képp ku fa dem benn yoon bu sañoon tey bu at bu jot nga dem. waaw parce que màkk dafa am secret yu fa nekk yoo xam ne yi mm. des fois di nga am jàngoro sax nekk ak moom fii coono mooy boo duggee màkk day mel ni jàngoro dañ ko teggi. da ngay ñëw. man de mbir sunu borom dëgg ngi noonu. Mm-hmm. da ngay dem am jàngoro fi mu sonal nga dugg màkka dégg nga li ma wax dem Medina màkka dem bu ñëw jàngoro ji dootu la sonal dootu man daanaka sax dootu ko yëg. loolu mbiri sunu borom la rek. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ah. Père ñu ñëwaat ci deuxième ponk bi euh, bi ma bëgg ñu gën ko waxtaanee mooy actuellement Père. xam nga fi mu toll nii moom kenn waxatul ay mbëru làmb yi sonn nañoo ñàkk nañ lañu def kii nañ mais mbëru làmb bi nga xamante ni làmb rek la yaakaaroon doon encaissé ay quarante millions quatre-vingts millions dix millions vingt-cinq millions tey bu ma doon tudd ci ñooñu génération boobu du jeex ñooñu actuellement nii per ak Covid bi te amuñu lu ñu investir wu ñooñ ci dara ci lan lañu war a mën a taxaw. a ah, xanaa dund seen ngor rek. ku ci dundewul sa ngor da nga sonn lool amoo woon métier moo jàppoon di ca for dara euh, taxawaaloo ñaanaatu dina la sonal te nag gis nga jiili sama baay dama daan askor du tàllal loxo suñ la may nga rus suñ la gàntoo nga rus te mbëri bàyyi xel ci loolu sama baay ma daan wax ne ma ma defal juróom ma defal la fukk su ma la mënta def delloo juróom it du la mënta defal fukki delloo sa juróom loolu man samay doom yar naa leen ci yar naa ci sama bopp muy benn dégg nga nit day fàggandiku loo xam ne ñëwagul. Mm-hmm. da nga yor jikkoy xorondom. jikkoy xorondom mooy day denc di for dugub di denc di denc ba bis bu dara ñëwee taw ñëwoon dara nga xam ne génn jafe na mm-hmm. fekk na la nga dencoon nga dem coppati ji faj sa soxla. parce que lii ñëw tey jii dal ci monde bi yëpp. Mm-hmm. ñu bari préparé ñu ko woon. seen mbër yi préparé ñu ñu bari préparé ñu ko waaye ku nekk nag yàlla la yor mais yàlla yàlla bay sa tool rek. bu fekkee dencee woon dara fàggandikoo woon dara wala liggéey woon loo xam ne lu bon bon mu lay ñu jural dara nga di ci am say de defoo ko woon yaa ngi ci coono bu metti te daa la wax mbër dina toll foo xam ne fii am xaalis rek a koy jëriñ am xaalis rek yam xaalis am soxlaam lekkam naanam léppam dara du manqué nga xam ne tuwaar kàlla loolu dina arrangé mbër mu toll ci digganteem leneen tamit dina arrangé mbër muy compétition. genre ku mel ni Balla Gaye ak ñoom Modou xale i dañuy toll foo xam ne fii bëre bi moo leen di sax xaalis bi. kii di am combat. Mm-hmm. sooy xaftaan boobu ngem ta sànni fa tuur fii dem tëbli fii nangam nangam làmb ji tëj sabar yi tëgg kumb bi kumb événement yi xew lool da li jaral lu nekk ci àddina. waaw loolu nag boo ko manqué toujours sa àddina am na lu manqué. Mm-hmm. te loolu nag ay jamono la de. Mm-hmm. dafa am fu mu lay ah, de. ah yéegee rek mu jeex. ñun ñi tey ji bu dana tëddoon fii de luñ ci mën. ah te pourtant ay jamono yoo xam ne yii tey jii. Euh, bu takkusaan masa jot nii da nga yàkkamte dem làmba ja foog na ñëpp yow léegi def kon dañ dañuy dañ la xame sax kii kan la dañ sax lool Balla Gaye mooy ñëw fii ak Birahim njaay mooy ñëw fii xam nga ne xale yëpp ci Balla Gaye lañ jëm ah, mu ngoog moo tax gis nga àddina lu nekk da koy fagaru nag mm-hmm. da koy fagaru fagaru bi nag loolu nag la xale war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaw ah, moo tax nañ ñaan yàlla liggéey alal ju barkeel rek gis nga alal bu barkeele euh, daanaka loo am la mën ngaa jeng ak ñaanu waajur wuy si la mën ngaa jàng mais doo daanu mukk hmm. mais père fi mu toll nii kon xale yi moment bi ñoom ñooñu nga xam ne jotuñu woon dajale lu bari làmb ay dix millions lañ ci daan am daan ko séddoo seen i mbokk wala daan ci dimbali ñenn ñi denc ñu fi mu toll nii dara te am nañ yenn tur te mënatuñoo génn di def yenn liggéey yi ñooñu lan moo lan mooy doon seen liggéey ndax per nag vraiment ki ngay dem di ko tàllal loxo sax moom moo la gën a sonn daa mënta wax rek ndax la jamono ji lu waykat bi da wax ku njëkk a yuuxu da ragal mais ñëpp ñëpp ñoo yëg méttitu jamono bi ki ne ci réew mi ak ki ne bitim réew. waaw foofu muñ rek fi nekk muñ rek fi nekk te jéem a war wërsëg nag yàlla nag du tëj bunt tëj fenêtre ah. déedéet déedéet yàlla du tëj buntu tëj fenêtre de man nga yaakaar fii yaakaar ne tey mu tëj fi am na ci ñoo xam ne bi Covid bi amee. Hmm. li ñu am bi ñuy ba bi Covid bi amul amuñu ko. bi Covid bi amul. Hmm. li ñu am léegi amuñu ko woon. am nañu ko ga xarum waay gaynde waay. daal la moo demee noonu quoi ay mbir tamit bul yaakaar ne rek bu laa bu tëjee rek torox nañu at naa nga lax déedéet. déedéet yàlla de ubbil xéwal gémmiñ gu yàlla xar fay ci wërsëg. Hmm. def ci wërsëgam. dégg nga tey fii ñu toog nii rek kii tey jii bi ñu toogee nii añ nii di sama doom bi yaay ñëwoon fi seet si ñu te ku ne woon fii lay añee ñun ko mën sóoraale wuñ ko te te tey jii mu ngi añee fii kon nga xam ne wërsëg fi la nekkoon looloo àddina ànd quoi yàlla nii day gëm yàlla rek gëm wërsëgum ne yàlla lay doon waaye nag ak sabablu nag ak sabablu nag ak maandu nag ak bañ a nag dugg ci nag ñàkk ñëw na rek coono ñëw na nga dugg ci ay njublang loolu maa ngi wax pour ñu nga xam dañuy agressé jeeg dañuy dem naan léegi sama doole laa yor damay dem ko fii fi jàmbur ku fi yëf ka fi jàmbur ñu def la ci bi. Mm. ku fi yëf ka fi kàmbur dañ la dóor ba nga mel ni kañangu dee. Mm. man maa la wax lii. nit day dundee ngorom te tàng danga ne kenn nit mënut a xeex fukki nit. boo fi kafee jàpp portable jàmbur wala jël àll jàmbur tiraande ko jublan ko mm. dara policier ngi fi gendarmerie ngi fi ñëf ci kaso bi rek muy way woo xam dootu fay ba dina jeex waaw diw ak borom tur ñoo le moo mbëkk fële moo tiraande fële ñëf la ci bi loolu gàcce loolu kay muñ daan sa doole ko gën. waay. kon de war nañ ci gën a bàyyiwaat xel rawatina ñi nga xamante ni jàpp nañ ni àdduna kenn xamu leen ay mbër lañ wala am nañ kàttan jàpp ni kenn xamu leen war nañoo mën a dem dogaale parce que nit ñi moment bi vingt une heure fu mu jot. nit ñi dañuy ñibbi te ñu bari dañuy bëgg a yegg seen kër diggante dix neuf heures ba vingt heures per dëkk bi danaan këcc mais moment bi nit ñi di yàqamte di ñibbi am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ciy bëgg a rax tappale ak mbiru saay-saay. waaw ku ci rax tappale ak saay-saay boo rëccee tey doo rëcc suba. naam daa moom lu baax moom. sax ci rek lu baax la cay fekk waaye def lu bon yàgg yàgg bis lay xaar loo gis nit di ko def rek bis ba lay xaar. Mm-hmm. bu dee lu jub bis ba lay xaar bu dee lu bis ba lay rek. Mm-hmm. léeg ñu jàpp koo xam ne yàgg na ko def te feeñul mu jékki-jékki rek ñu ne mu ne diw dëkk moo doon def lii fekk ana mënu mujje dara day feeñ rek moo tax booy nekk ci njub rek dox dox ci njub rek am solo waaw comme tere nañu daal dañu couvre-feu bi neuf heures war nañ tëdd foo nekk fu six heures nañu départal dem sa kër toog waaw ba affaire bi dañ comme affaire bi gouvernement bee ko génne président ko décret la bu ñu génne nañ ñun ñëpp nañ ko moytu nañ ko moytu kooku ko ci moytuwul bu ñu la tëggee tey da ngay sonn sonal say bokk rek. waaw te loolu dara jot mbokk moo xam ne mu nga war a xëy di jënd yi dépasse xëy lu mu togg bëgg fa ko ñu ko dem di xëy di leen dal mori wala police di la liggéey lu la génnee loolu musiba la waaw moo tax faut faire moytu bu baax a baax daal loolu laay conseillé xale yi ñu góorlu teel a tëdd cinq à six heures ñu dem entraîné ji ah dem préparer seen bopp daal bàyyi la xam ne lii ah yenn ñaan yàlla mu jóge fi daal kenn xamul kañ la daal. waaye feebar la ci nii waaye feebar la ci làmb ji. la ci làmb ji de. Hmm. feebar la ci sport Sénégal sport yëpp rek. da taal télé bii di seetaan match yu mag yoo xam ne saa bi daan fees ba toog anamu tey doo fa gis kenn joueurs yeeg entraîneurs nga fa gis. xam nga loolu kon feebar bi monde bépp la. Hmm. monde bépp la dañ ci góorgóorlu rek ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla teggee jàmm rek. waaw. seddaay bi moment bi dëkk bi seddee mbër buy entraîné ci lan la war a entraîné. parce que gaañu dafa yomb ci seddaay. waaw sedd bi xam nga li gaañ mag gaañul gone gaañul gone. Mm-hmm. Mm, gone. Mm-hmm. li gaañ mag gaañul gone de. Mm. Ah, waaw waaw yatam mag ndaw ndaw mag dafay fragile mag xam nga ay yaxam. Mm-hmm. dootul dëgërati. deretam tey condition yi nga xam ne tey mag li muy entraîné ci quatre heures door a commencé jàpp tuuti condition. xale bu ko defee ci une de temps rek jàpp forme. xale bu fayul xolam naanoo tuxoo. doxaanoo. Mm. booy entraîné tuuti rek jàpp forme mais gaañu dégg nga nag moo ndog guy ñëw rek la mm. waaye dama la bëgg a xam ne sport moom mm. ki ci nekk daw rek koy def. mag nag dina ko def waaye bokkuñu ni ñu koy defee nag. bokkuñu ni koy defee nag. waaw waaw mais euh, sport bi sàmm sa bopp rek. góor góorgóorlu di moytu yu bari rek. loolu la ko mais xale yi ku ci góor mën ci sa forme rek. nga xam li nga def bul tux bul naan bul doxaan del teel a tëdd. Mm-hmm. di teel a yow sport yi sport bi nag nga boole ci nag nag looy for di def dara sa bos. waaw noonu rek laa dida jërëjëf mm. Père Birahim Ndiaye euh, mbokk yi dégg ngeen conseil bi nga xamante ne jox na ko képp kuy mbëru làmb waaye génn nañ sax làmb dugg ci société bi. Euh, am lu ñu bëgg ci suñu àdduna waaye Père mu ngi leen gën di jàngal ni ndaw da nga jub. ndaw da ngaa war a régler ndaw da ngaa war a sax ci li nga xamante ne loolu lay say waajur di digal nga di ko def ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax ndax tey déplacé wu nañ ñëw këram defee fa jàngat làmb bi te yaakaar naa ne dinañ ko fi def ay yooni yooni yoon incha allahu rabbi bu àndee ndogal ak suñu borom père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la remercier. waaw di kontaan torop ci seen déplacement ñëw fi ci kër gi wax dëgg yàlla benn lañu. Mm. parce que ma ñëw foofu ak ngeen ñëw fi benn la. bu ngeen ñëwee tey ci kër gi ñu defee ko fii damay kontaan lool mm. xëy na nag am na lu manqué te xamaloon nañ ko defam déet mooy analyse combat yi passé mm. ndax tey xam nga dañ ko man wala déet. am nañ am écran sax mais beneen caméra bi ñëw. beneen caméra bi ñëwul waaye nag kooku foot la ci yow wala ci. ci Bachir bàyyi ko rek dinaa ko indil lu bett. comme parce que mooy patron bi rek boo bu defee erreur boobu nag yow ah? ba baal ko wala ba bañ ko baal. baal ko rek. Ah, li ba koy baal dafay bëgg a bëri. fàtte du du fàtte de moom. Mhm. yàlla dañoo mooñaale pour ñuy fàtte. Mhm. waaye nag wax dëgg yàlla tey moom bu fekkee caméra bi kii télé bi mën na ko. Mhm. waroon nañu woon di te macha allah écran bi moo ëpp écran bas bi. ah waaw kon ba tey mënoon nañ ko fi defaale fii. ah mais la prochaine fois ñu bàyyi ci xel rek. incha allah jërëjëf di kontaan ci ñëpp nag di ñaanal jàmm. Mm-hmm. di ñaan samay kàddu yàlla na fekk ñëpp ci jàmm rek. barakatu rasulaay e, di ñaan ci yàlla daje biir yàlla bu toogaay bi yàlla bu muy suñu mujj toogaay rek. Mm-hmm. yàlla ñu fekk déwén weesu ko rek. anam ko barakatu rasulaay waaw. jërëjëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb euh, Baye Djily Père Birahim di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf.